ginnaaw xew-xew yi fi jàll yëpp mu doon élection yu député yi mu doon élection yu au conseil des collectivités territoriales mu doon itam euh, taxawaay bu bees bi ñuy taxawal assemblée nationale bu bees bi nga xam ne moo génnee ci élection yi ma bëggoon tàmbali si di sant suñu borom di sant itam waa réew mi ci ni nga xamante ne noonu la ñu defee woote yi jàll yëpp muy def ko ci jàmm def ko ci salaam waaye organiser ko it organisation bu am solo loolu nag jar nañu kañ askanu senegal ndax Sénégal wane na ne démocratie bu mag la démocratie bu mat la suñu administration si diiru juróom benn weer ci juróom ñaari weer organiser na fii lu toll si ñetti élection ci benn at bi si weeru janvier def nañu élection mairie ak conseil départemental weeru juillet ci njeexital li ñu def élection député yi mu tombe nawet weeru septembre ci taxawaayu weer wi ñu def itam élection au conseil des collectivités territoriales élection yooyu yëpp nag li muy nekk-nekk xëccoo li muy bëri bëri jafe-jafe ñu organiser ko ci dal ci démocratie askan wi it wane si mat gu mat sëkk ku ne tànn la nga xam ne moo la doy moom nga bëgg tànneef boobu moom la ñu jot ci résultat yi ginnaaw bu ma santé askan wi danaa sant administration ak waa tribunal yi nga xam ne ñooy atte élection yi sant itam force de défense et de sécurité muy l'armée police gendarmerie ngir sécurité bi nga xam ne indi nañ ko ci élection yi waaye sant itam ñi ñu tuddee observateur nga xam ne ñooy yurndu élection yi ñii jóge ci biir réew mi ñi jóge bitim réew sant parti politique yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jongante bi waaye itam sant nag presse bi nga ne ñoom ak société civile su leeraay amee ci élection seen dox seen loxo jotale na si kon mel na nu Sénégal démocratie bi wala boog aada bi ñu amoon ci wàllu démocratie wane woon nañ ko ci élection yi muy élection yu leer nañ yu amul benn sikki sàkk waaye surtout élection yi ñu dox ci jàmm kon ginnaaw nag taxawal nañ assemblée nationale bu bees maa ngi euh, jox sama ndokkale ñi nga xam ne ñoom la ñu fal ñu nekk ay ndaw réew mi di leen ndokkale ci pal googu la nga xam ni askan bi wane na ne moom mooy kiy joxe maa ngi am itam xalaat ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon i député te war a génn ndax démocratie itam noonu la ñeneen itam dem nañu si jàmmarloo bi waaye yàlla def na amuñu démocratie nag saa yu nekk day day am jàmmarloo ñi dugg ñi génn ñii am ñii ñàkk noonu la mbir mi doxe waaye bu ñu gisee li xew fan yi ci taxawaayu taxawalu bureau bu bees bu assemblée nationale maa ngi ñaawlu lool xew-xew yi nga xam ne gis nañ ko ci assemblée nationale xew-xew la yoo xam ne rafetul ci deru Sénégal rafetul ci dayo démocratie Sénégal ndax na ak ñaawteef yoo xamante ni bokkewul dara ak li askan bi wane moom la ñu gis muy xajamal suñu démocratie ñaawteef yooyu nag ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo ko def ñu xam ne penc ndaw réew mi kuréel la gu mag ci senegal kuréel la gu ama am solo ndax assemblée nationale moom moo yor budget yi ñuy doxalee réew mi su budget amulee dara du dox ñiy faju duñu mën faju ñiy fayeku weer duñu mën fayeku weer ñi béy du ñu am lu ñu leen jàppale kon loolu du ay caaxaan loolu nag jàpp naa ni am na ba pare waaye li may ñaan député yi nga xam ne léegi toogalatuñu fa parti waaye ñoom ñoo fa toogal askan wi ñu xam dayowaay boobu respecté it bërëb ba ndax bërëb ba même gouvernement amul sañ-sañu ñoo dugg ku ne am na fu ñu la teg lu dul ñoom ñi nga xam ne ñoo yor woote bi ñoo fa war a nekk kon nag dañ fa war a nekk nekkin bu rafet nekkin boo xam ne méngoo na ak askan wi lii nga xam ne jox na ko kenn ku nekk si ñoom ci kóolute bu loolu weesoo may fàttali si ne charte réew mi de am na lu ma teg en tant que njiitu réew muy war di saytu doxalinu réew mi ak doxalinu kuréelu réew mi loolu fala budda il faut que ma topp ko ba lépp luy démocratie ak luy xajamal démocratie wala doxinu doxalinu kuréel yooyu dara mën ko gàllankoor bañ ko gàllankoor maa ngi ñaan nag député yépp ñu taxaw seen taxawaay na ko assemblée nationale yëpp doon defee depuis indépendance gis nañ fi façon débat bu nekk kenn ku ne lay sa xalaat lay sa bëgg-bëgg mën nga ko wax te doo yàq mën nga ko wax te doo xeex loolu nag mooy li nga xam ne maa ngi koy ñaan ngir ñu mën a jublu ci liggéey ndax lu matul weer dinañ war a def session budgétaire muy budget réew mi war nañ dem waxtaanee ko dafa laaj ñu def ko ci dal def ko ci yar ak teggin du tere kenn ku nekk li nga xam ne mooy sa ngëm-ngëm nga wéy di ci dox loolu fas yéene naa ko dox ndax charte bi moom a teg euh, maanaam responsabilité boobu ginnaaw loolu mbokk yi dañu nekk ci jafe-jafe àdduna jafe-jafe yoo xam ne wër na réew yëpp ndax ci mbas mi ñetti at a ngi ni fenn fu ne ñu ngi fay gis ay tolof-tolof ci wàllu liggéey ci wàllu koom ak ci wàllu dundinu askan bi waaye terewul jafe-jafe yooyu li ñuy tar-tar sama gouvernement yëkkati na alal ju takku ju toll ci juróom benn téeméeri milliards ak ñaar fukki milliards yoo xam ne dañ ko dugal ren ngir teggi yenn jafe-jafe yi teggil ko askan bi ci loolu ñetti téeméeri milliards yëpp ñu ngi ko yóbbu ci wàllu courant bi ak gaz bi ak mbirum gasoil ak essence te loolu mu ngi yem ci weer wi muy le trente weeru septembre téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñaar gouvernement bi daf ko teggilu ci ay lempo ak i taxe yoo xam ne dañ ko teggi ngir njëg yi ci seen bopp mën a woyof walla bañ a dis lool muy njëgu suukar njëgu mburu njëgu ceeb ak lu mel noonu ginaaw téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñaar yooyu ñu yëkkatiwaat lu toll ci téeméeri milliards ak ñaar fukk milliards yokk peyoru liggéeykat yi liggéeyal nguur gi état bi jëlati ba tey ñeent fukki milliards ak ñett ak lu topp jagleel ko lu toll si juróomi téeméeri junni ak ñeent fukki junni ak ñett si ay njaboot yoo xam ne yitteelu nañ ko lool ñu def ko ay transfert kenn ku si ne njaboot gu ne jot si fukki junni ak juróom-ñett waaye loolu yëpp xam naa ne am na solo waaye xeeb naa ko nag lool xeeb naa ko ba tax na gouvernement bu bees bii may bëgg a teg ëllëg bu ci yàlla ànde incha allah sas bi ma koy sas bu gën a tar mooy mu indi saafara indi ay saafara ngir gëna wàññi njëg yi wàññi luwaas bi ak yokk xëyu ndaw ñi yokk itam lii nga xam ne mooy jàppale bi ñu war a jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ci wàllu entrepreneuriat xeex itam continuer di xeex mbënd mi nga xam ne bu nawet solo comme nawetu ren bi dana indi ay yàqu-yàqu yu bëri loolu incha allah bu ci yàlla àndee mooy jéego yi gouvernement bi njëkk a def man ci sama jëmm boobu fas yéene naa woote kuréel yi ñi yor wàllu consommateur yi di si dox ak commerçant yi ak importateurs yi lépp ñu am waxtaan ngir effort yi état bi di def ak sacrifice yooyu mën a yegg si law ba ci askan wi yëpp daal mbokk réew mi moo doon kàddu yi moo bëggoon indi tey waxtaanee ko ak yéen ndax gëm naa ni Sénégal bi ñu bëgg muy réewu jàmm ak salaam ñu bokkoo booloo gën a am doole ku nekk yokk ba yëg ko ci dal ak ci tey maa ngi leen di gërëm di leen sant te di leen balwaax wassalaam En juillet 2022, celle des hauts conseillers des collectivités territoriales du 4 septembre et l'installation du nouveau Parlement. Comme en janvier dernier pour les élections territoriales, nous sommes allés aux urnes le 31 juillet pour élire nos députés. À l'unanimité, les observateurs internationaux et de la société civile ont témoigné que le scrutin qui s'est déroulé sous la supervision des organes administratifs et judiciaires compétents a été paisible, libre et transparent, garantissant ainsi la sincérité du vote et la crédibilité des résultats. Le mérite vous revient, mes chers compatriotes. Grâce à votre participation citoyenne, dans le calme et la sérénité, notre pays a confirmé sa tradition de démocratie majeure et apaisée. Cela fait notre honneur et notre fierté. Je vous en félicite. Je remercie et félicite les services de l'État les organes de contrôle, ainsi que les forces de défense et de sécurité, pour la parfaite organisation du scrutin en pleine saison des pluies, six mois seulement après les élections territoriales. J'y associe les acteurs de la société civile et des médias, dont l'implication active a contribué à la crédibilité des opérations électorales. Aux députés élus de toutes les formations politiques, j'adresse mes vives félicitations et mes voeux de succès dans l'exercice de leur mandat. J'ai également une pensée pour les candidats non élus et les députés sortants. énergie bu baax a baax voilà c'était donc là li nga xamante ne rek moom le président de la république Macky Sall waroon jàkkaarloo ak li nga xamante ne rek moom mooy askan